ñëwaat ci euh, Moussa euh, ki nga xam ne mooy Pape Djibril Ndiaye nekk porte-parole coalition républicaine bu ki nga xam ne mooy Pape Modou Fall di le directeur de l'emploi euh, di la sa présence. yow maa ngi lay maa ngi lay fay mhm. naqaru nag tamit c'est vrai que aujourd'hui le directeur de l'emploi Pape Modou Fall di nga xam moom laa fi toogal. oui doo ko yëg ci suba si. mën naa ne fajar la ma woo ne ma mi ngi Diourbel waaye amul lu ñu war a mun def. Mhm. ba ñu taxawu taxawu bë bés mel nii. jërëjëf xam nga bës bi dafa lu tax mu xaw a metti tiis dëgg mooy daf tombé premier mars. Mhm. li tax aussi mu gën a metti mooy daf ko yëgoon parce que dañ ko waajal. waaw dañ ko waxtaanee ba am na émission boo xam ne sax maintenant c'est devenu viral. Mhm. yu wane ni fi nga xam ne ni Cheikh Yérim mi ngi koy wax di ko wax ni yow mii ak man mi ñu ngi attendre mm-hmm, mm-hmm. foofu la la la bëgg wax euh, lu mel noonu naam benn bokk yaakaar lañ bokk waaye aussi pour man l' état devait prendre toutes ses responsabilités. parce que am na waxtu yoo xam ne xam nga ni kii émission bi day gudd guddee. Mm-hmm. waroo sax bàyyi moom kese muy dem man pour man loolu c' est la première responsabilité. maanaam loolu dafa war na ci alerte. parce que yëf yi metti na trop mais mënoon na gën a garaaw. mënoon na gën a garaaw parce que maanaam bu xëy na bu amuloon sax instinct de défense boobu. xëy na mu ko def leneen la ñuy wax tey. te aujourd'hui tey li encore li ñu war a mën a bàyyi xel mooy politique dafa am ñu si dugg te xamuñu politique politique dañ koy jàng. Mm-hmm. politique dañ koy dañ koy tar dañ koy tarbiw mais boo ko tarbiw jékki-jékki ñëw rek bëgg a def politique li muy indi mooy nga yaakaar ne képp ku wax sax noonu la. Mm-hmm. politique dafa nekk affaire contract euh, da ngay gis contradiction la mm-hmm. sur des idées. gisuñu lu fi Maimouna Ndour Faye wax. lu war a mën tax lu jëf yu ñaaw ji. Mm-hmm. et même sax bu waxoon jëf ju ñaaw même sax bu ko waxoon ku ne xam nga ne su ko wax musu ko waxtaanee si faf mais jigéen am na loo xam ni kenn warul xalaat di ko jëmale ci moom. Mm-hmm. mas max jëf ju ñaaw ji. donc loolu je le condamne très sincèrement. merci beaucoup et encore en tout cas ñu ngi ñaan aussi li nga xamante président Macky Sall mi ngi koy yëkkati. Mm-hmm. parce que wax ji itamit il faut ñu dur ko baaraam. amnistie biir na ko teg ci suuf. moom moo xam lu tax mu ko yëkkati. Mhm. et ça je le en tant que en tant que président d'un parti politique membre de Benno Bokk xam na ni Benno Bokk Yaakaar ñëpp nanguwuñ amnistie bi. même dans ses rangs ça ne fait pas l'unanimité donc amnistie bi na ko teg ci suuf d'autant plus que kenn xamagul nag kan la. Mhm. waaye nag la coïncidence est vraiment flagrante. jërëjëf di la sant bu